réaction si match bi. ah waaw xanaa di rafetlu loolu rek parce que match moom nii rek la mënoon demee voilà football nañ ko si fair play et a gagné voilà yaakaar naa ni euh, kontaan nañ ñun ñëpp voilà sama joueurs yi joxe nañ kontaan nañ si joueurs yi joxe nañ lépp luñ mën voilà et le meilleur a gagné. lii mooy seen premier match. waaw ah, bii mooy suñ premier match. ok nga ànd seeg seen joueur bii nii nga xam ne mooy numéro 10 bi sëñ bi ngi lay nuyu. maa ngi leen di delloo ziar bu baax. tur bi naka la. Moussa Sène. Moussa Sène ah Moussa Sène yow nga porte numéro 10 bu ASC euh, Ndefleng nga marqué deux nga xam ne moom ci match bi lan mooy sa réaction ci deux nga xam ne moom nga dugal. waaw ah, si kontaan rek si kontaan bu baax aussi te kontaan samay coéquipiers yi parce que liñ mën yëpp def nañ ko alhamdulilah daal laa mën a wax te aussi le travail continue macha allah daal alhamdulilah. voilà on est qu'au début du du du championnat def nga nga ndax yaa ngi am xalaat ne mën nga nekk meilleur buteur si si compétition bi. waaw parce que man vision boobu laa am dama ka jël si incha allah meilleur buteur laa jël si ak trophée. donc euh, suñu question mooy euh, tey yéen seen première match ngeen def li nga xam ne mooy victoire am trois points am li nga xam ne aussi euh, moom mooy deux buts yi nga dugal tey ban taxawaay ngeen bi continuer ngir mën a jël euh, xam ne ah, moom comme li ma doon wax rek benn objectif laa amoon jël trophée si bi may football kare te yàlla dogal na ko man tamit bi incha allah moom laa jël si waat quoi kon gars yi mérité nañ ko parce que ñoom liggéey nañ loo xamante ne mën nañ jël ay coupe coupe xam na mais xam nga rek yàlla moom ak li mu dogal nit mu si dara football moo demee noonu parce que moom farul fenn quoi da gis ko football ñu ñëw gagné la mais bii moom incha allah gëm naa ne man maa koy jël si quoi loolu mooy sama objectif. tey li nga si supporter non man kontaan rek xanaa kontaan rek. te day te day continuer incha allah waaw ñoom dañ may motiver chaque jour di ma woowee benn jour boo xam te ne dama bëgg muy Cristiano Ronaldo kon faa ma wuy <laughs> merci beaucoup merci jaajëf kon ñu ngi leen jaajëf